dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo yéen kaay gi di Sud Quotidien Le Quotidien Les Échos yéen kaay yëpp xëy dikkal ñu ci commerçant yu marché Sandaga yi nga xam ne niki démb ci àjjuma ji 22h la ñu leen fa waroon a jëlee waaye nag mbir moomee jamono ji dañ koo tegandeegoon ci suufa ministre Aly Ngouille Ndiaye mi ñu dénk kaaraange réew mi moo fa dem niki démb waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy commerçant yi waaye nag wax na leen lu leer leen lu mel leen bu ñu tëbaskee ba sa suba maanaam danañu leen fi jëlee yéen kaay gi de Les Échos nga xam ne moo doon defante ak commerçant yi jamono ji dafa daal di lajji njiitu réew mi di président Macky Sall ko daal di désavoué bi di quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu tabaski gi kay moo sowee ñi nga xamante ni ñooy commerçant yi yéen kaay gi mu ñu xamal lan ñu état nag matukaay yëpp jëloon na ko maanaam wàcce takk der yi waaye nag njiitu réew mi di président Macky Sall moo mujjee xam ne commerçant yi maanaam li ñuy daj ak jafe-jafe yi nga xamante ni amee nañu ko ci covid 19 beeg tabaski gi nga xamante ni mooy wàcc loolee moo tax maanaam mu daal leen di bàyyi ñu wéyal liggéey waaye nag Aly Ngouille Ndiaye wax na leen lu leer lu mel ni midi yéen i kaay gi di direct news mu xëy di ñu xamal la ñu lu jëm ci wàllum tëj espace Schengen gi nga xam ne union européenne waxoon nañ ko te réewum Sénégal bokk na sa waaye union européenne mujj nañoo deltu ginnaaw nee nañu boole wuñ ci Sénégal yéen i kaay gi di Vox Populi mu xëy di ñu xamal la ñu fula mooy jaay Dakar ba tey ci biir yéen i gi lu jëm ci woppi coronavirus waa OMS de organisation mondiale de la santé ñoom nag ñoo ngi dànkaafu réewu Afrique yi ci lu jëm ci ubbi seen frontières yi ndax nee nañu jàngoro ji ba léegi nii maanaam ma ngi fi te bu ñu ubbee ma ba kumba gu rëy mën na am journal bi mu ñu xamal ñu musiba am na laas yéene kaay moo ci xëy nee na ancien ministre Bamba Ndiaye ni ki démb la génn àdduna te Covid 19 bi moo ko faata yéene kaay gi di source a xëy nag yóbbu ñu diwaanu Touba mu xëy di ñu xamal ñu ceeb bi nga xamante ni ministre Mansour Faye yóbbu woon na ko Touba bi mu demee amul fu mu ko dugal loolee taxoon nañu luye ñaari magasin ñaari magasin yooyu nag ñoo ngi lu toll ci deux millions cinq cent borom ñaari magasin yi laaj leen xaalisam ba sonn ñu lànk kandaare laaj na maire Touba di Abdoulaye Ka laaj na préfet bu Ndama ñu lànk kandaare layaam layaamal loolee moo tax borom ñaari magasin yi maanaam tëj ceeb ba confisqué ko bañ leen koo jox yéen a kaay gi de la xëy na ci lu jëm ci mbirum chantage sexuel bi nga xam ne maanaam abi nduur ma ngi si tuumaal Pierre Atepa Goudiaby mbir mi nag daan nay mujjee teere ji sa yoona ba tey ci biir yéen a kaay gi de les échos mu xëy di ñu xamal naan ñu ëmm seen ni ki démb maanaam gendarmerie bu mbaaw daan na koy déglu ndax dafa am benn otom Range Rover boo xam ne benn waay moo ko bëggoon a sàcc ci lañ wax waaye nag ñi nga xam ne ñooy ay jegeñaale ëmm seen daal di gi sàcc bi dóor ko ba maara day bi buñ ko yóbboo ci

mbir yu doy waar a doy waar ma ngi ci yéen kaay gii di réew mi quotidien réew mi quotidien xëy ñu génne ñu mi yóbbu ñu diiwaanu Russie foofee nga xamante ni ay élection référendum la ñu amal waaye nag ki nga xam ne mooy Poutine mujjee na ko gagné opposition ba maanaam ku jege dañoo lànk karnaare ndax nee nañu ay sàcc ak njuuj njaaj maanaam daf ndax ki nga xam ne mooy Poutine dafa bëri ay urne yoo xam ne daf kaa installé ci foo xamante ni maanaam jaaduwul a Balde journal bi nee na mbokki Ama Balde bay boo ñu wax ak moom ndax jamono ci Modou Lo ma ngi ci entraînement yu rëy